kor weeru koor kër nugum nugum mi weeru koor siru bi man musuma gis lu mel nii kër nugum nugum mi man musuma gis ku ragale daj lu ne lay wax bu koor gi tàngee kenn du am jàmm day nugum nugum mi di nugum nugum mi di nugum nugum mi kër nugum nugum mi kër nugum nugum kër nugum nugum mi nga ne da bëgg dem Mbàkke daaru xafoor laa jëm waa ana sëñ Moudou Fall Moudou Fall général waa waa sëñ Moudou Fall général ak a baax mooy sëriñ Tawfiq kii Sërif Mbaye Sërif xam da nga koo xam ak Baye Sall Mbaye xuri da koy bañ nag demen xuri xaw yàgg na la am xaram de la waa waa kii xanaa xamu ne ci weeru koor la ya? moom nag man sa koñ bii nee tax bëgguma fii ñëw moom ndax lu ne ngay gis ah, lu ne dama yaakaar maaleykum salaam na nga def waa kii téemaa ñu goo xam ne loolu kan tooñ la loolu kenn du ko def may ma tuuti rek ma kii maa koy réglé ah non kii kii maa koy réglé waxal ak moom. weeru koor muy solli soxna si ah madame may ma waay. <laughs> maa ngi jégalu ci woo ji ma la woo ak bëccëgu koor xam nga ko nga taxaloo ma. waaw moo tax may may desalewu maa ngi jégalu bu baax a baax. yow xanaa gan nga ci koñ bi. dama fa gan ah man ka dama laa xàmmewul ci koñ bi dama laa xàmmewul ci koñ bi tax dëkk sax ah dama la fee xàmmewul de ma yaakaar sax gan nga fi la xam nga ni neex nga ma lool yaa ko wax de neex nga ma trop dëgg yàlla maa neex lool ma la séenee nga jàdd ci koñ bi ñëw sa takk ndeer bi rek laa gis miir bëccugu koor gi sax ma ci jaaxal waaye kon damay ñëw sa kër bu ko defee no no no no no lang li ñu wax naan ko nay seen lang neex na waaw tuwarka ah. neex nga ma lool lool lool hmm. waaw maa ngi koy dolli maa ngi koy dolli gis nga sama xarit moom bu gisee lu baax rek daf ma ko yéene mi ngi naa ma ndax mën ngaa amaale numéro beeg yooyu yëpp <laughs> ma doon laaj ndax man na ma am sa numéro rek avec plaisir waaw jox ma limat gi kon bu ko defee eh, ñu déggante daal amul benn problème yow fi nga dëkk fii mbaa soyul non non ci ah fi nga jógee nii a ah, boor boobu nga dëkk defal ma fi limat gi dégg bu ko defee suma ma ya, ñëwee ba dikkee bor bi nga jógee kon damay agsi ci bitig bi wala du ko jar waaw ci côté bitig bi noonu suma ma ñëwee ba ci bitig bi rek mën laa oh. woo waaw boo ma wooyee di nga ma jox ah yow de xanaa ba ñëw ko ndogu seeg yow ma ne ko paa ba jantal ba mel man yor yor ya. ngaam yi am karaw iya, déedéet iya, lu ma ciy bañ do doo bañ ma ndogu seeg yow non non paa ba am ngaam yi sax xam nga sikki <laughs> sikki moom la kat dum eh, ko am da ngaa neex a ndogoo sax alhamdulilah rabbil alamin ah, ok sama xol sedd na loolu la tur wi naka la ah. penda penda nan gay njooro bu si bàcc dinaa la woo dégg amul benn problème ok jërëjëf Penda. waaw c' était énormément waay toujours c' gone yi duñ sol lu baax mukk mukk mukk mukk man gone yi ren yi jaaxal koor gi daal moo xam ne li ñu solo pour sol. Ah, kii Jamaay oh, kon yow Serigne Mbaye noonu ngeen demee. <laughs> Saraka. déedéet sëñ sëñ Moodu sëñ Moodu tamit noonu la doonee sama waay. ndeysaan sëñ Moodu Fall général. Ah. sërif Mbaye nag mosumaa xam ne noonu ngeen demee moom waaw ah, mosumaa xam ne noonu ngeen demee sërif moom ku baax la mën na ko yaru te mën a te mën a kii te mën a tëgg xiin waay ndeysaan buy mag waaw sërif ku mën a tëgg xiin waaye tànn gi nga doon tëgg fee pour lan la tànn biir gan nu xam naa la dëggu woo fi ne dëggu gi ngay woote nekkoo ci li nga ma déglu ma laa wax li nga ma wax li nga teg say loxo ak li nga wax fee sa jëme tarama imposé déedéet da ngaa. déedéet déedéet déedéet déglu ma rek déglu ma rek yow yedd nit ki lan mu ci génn téléphone wuti. non dama ko doon wax ñi ma mës a jot a simmi laa ko doon seen i photo. ah ni nga ndax man dama daan aay yooyu di so yii dama dama ne ko nag bi mooy première fois ma lay avertis. yow na ko xoolal réglal sa bopp dama bëgg nga teg yëf yi ci axe. mbaa ma dugg ci mbaacu léegi wax ko ni mu demee. <laughs> xam nga ma nag ah yow nga yow nga def xaj. c'est mon ami de valeur. <laughs> le capot di capot l'homme de preuve l'homme de science. imbécile bi xam naa xam naa ne dëgg woo. ak dëgg sonalu la. dama la ko doon nëbb waaye comme su ma a dem nooy ànd. waaw waaw waaw moo gën a. te moo gën. xam nga teel a nangu day yombali duma. te moom daa mel ni ñoom des nañ fa saade ñoom seen famille. ay ay laadum lañ. ba li nga wax des na fa. nag euh, nugum xale bi ma romb fii ma bi ma ko observé obre observé observé. bi nga ko xoolee xoolee rek non non baal ma dimbali absorbé. waaw du ma ko absorbé. waaw non kii wax dëgg ci race bu baax la bokk. non laadum la taayu Dubaay la. waaye nag astaghfirullah ay waay. danoo woor ay waay ci weeru koor la. waaye na daal danañu invité ndogu jël naa numéro. ah Penda Gueye la tudd. Penda Gueye nee na ci côté bitig bi su ma ko weeree ñu dem. nagu bul caaxaane lii waaye. waaw caaxaane lan loolu mën na gën a engrais. mën naa fa am ku may koy toj saa jàpp mi rek. <laughs> bu tojee nga defaat su ma jàpp day faral di wax ni kër goo gis am na lu koy yëngal ki yëngal réew mi yëngal kër yi jeeg yi dal di koy bëgg di mos xam la mu saf kakama ca ka xam boo ko mosut doo ko xam baax lool ci góor gu tëlee baa góor gu gaaw a àgg yow mi xepp sa awra lool bëgg mu toll nu la neex jëfandikool mos xam ba si yow mi nga xam ni yaa am hémorroïde interne wala externe ndoxub siti sonal la lool man ni njàkk rek jaaxle jeex na ginnaaw ba mos xam ñëwee ci mim réew ngir nga jëfandikoo produit bi di mos xam lu yomb la tàngalal sa ndox ba mu tàng

xamne mom rek lañuy top xamnañ ko. man suma ci dekk bi senegal ngay gis rew mo xamni da ngay jël ndaw ñi téeméer bu jël juroom ñetti fukk yëpp ya, maanaam 80 amuñu liggéey fi ci senegal la té pourtant li jax moy ndaw yi nga xamni amuñu liggéey ñu bari bari jàng nañ ba am seen diplôme way tax yeen est ce que ñu ngi leen jàng loolu sax ci école pour ngeen tel ko xam bu ngeen démé ba am seen diplôme ñu leen ko jàngal. ah ñun daal en tout cas ñoo ngi dem di jàngi di wacc di ñibbis si kër gi. loolu daal lañ fi nekkee. mais Sénégal dañoo war a wax dëgg yàlla gën a moom jàppale ñi nga xam ne am nañuy diplôme ñu liggéey parce que boo jàng pare te liggéey amul sens. dañoo développé noonu ay yooyu ah. ah. gis nga nag Ablaye tey jii danaa la waxum dëgg de Ablaye mbir mi daal néewul ci njàng képp sa saar gi xaw ma ay tubaab ngeen xaw ma ay africain mbir mi du njàng képp dem ca tool yi maam yee dellu yow ku lay boon ci toolu baay teg la fa war nga mën a bay yu mag nan dellu jobs yooyu ñu bàyyi. général eh, danaa la loqi. xam nga yow. ndax euh, euh, kii Ablaye bay ba na fa hectare bu rëy toll na mu ne nit mën na faa bay lu ne. lu ne ma am jotu bay yow kan moo am jotu bay. non d' accord man d' naa li mu wax man nangu naa sax bay baax na gis nga bay baax na mais nag ma affaire bi du du ci mbay kese parce que problème mooy ñu baree bari ñu fi mu ne looloo ñu sonal gis nga mbay day ànd ak xam-xam gis nga boo amee hectare yu yooyu la nga ànd ak xam-xam la nga am lu baree baree bari. yaa ngi dégg kii am laay njàngu njàngum góor sax man gur naa ko reconnaître njàngum góor sax mën naa ko reconnaître fa fa fa may ma tuut nag yéen nag wax ak yéen mi ngi bëgg a jot de yéen gone yi ndaw lu xew laa waaw seen wax jëpp maa ngi koy dégg de nga naan réew mi amul liggéey ak njàng mi nii njàng mi naa yow Ablaye yow looy doyeb xaalis yow kafek jàmbur sax boo ko këppoon nañu woo maa fay faa mi maa koy yor la jël kii maa ko ci kër gi ndax magam laa takk. Ah, kii yow kër gi boo réew mi bu ruuxuti lu ngeen ci xam. yéen dañ leen a yor yow su kër képp lu eh. ko gàddu jar boo ko yoroon semaine rek kër gi tax. yor nag. léegi nag ku yor ah, baatu yokk nga ci yor. na jërëjëf baax na baax na yow nga bëgg naqari nga direct amoo direct. loolu ma gën a naqari ci yow. li nga wax a tax fiy joxe dépense. maa ngi maa ngi joxe dépense déglu ma rek. dépense su taaba taaba nga gis wax. naa wax dama li may wax parle trop. man pourtant li may wax nii yow sa avantage la parce que su ma amee liggéey femme tey bu demee ba am liggéey. sa xel sa xel sa xol sedd li may wax nii pour ñu jàppale ndaw ñu am liggéey loolu ci yow la gën a. parce que man toog gi ma toog ci kër gi nga. Ablaye naa jàmbaar nga am nga yéene waaye yéene daa yur kër yow jar képp mosoo ko engagé ci kër gi semaine ba noppi naan réew mi dañoo war a jàppale ndaw ñi ay waxi képp yurut jar ah, yurut suñ ko Ablaye lu jor yomb mel ci ngeen di batt góorgóorlu jàng mi sax damaa bëgg nga bàyyi lu jor yomb kii da nga wax na ko lu jor yomb baax na yow nit daa bëyit boppam na rees ak jàmm waxtaan leen na rees ak jàmm yow Ablaye daal am na ñu mu tare au moins Ablaye daal tey sëyoon waxum xaalis bi daal na jeex ci kër gi lépp maa ko dina neex waaye yow xam naa moom yow na fekk yow bu ma amul jabar mënoo fexe ba sëy ah. yaa ngi ci kër gi ne fàtt fàttaral ne paanuk mbari puusoo paasoo taman cër nga ma war a jox eh. cër bi nga jox sa bay nga war jox ndax gi nga sa bay dama raw ci jabar waaye ëppale eh, ma dara la xoole ba raw la ci jabar si jabar la ma raw ah, ah yàlla iya dogalti takkil loolu nga wara xam ko tak sonal ko kan man mi ya, ya? mu daw kon wéro nama nama la sa bay al xol ah na ma la luye man mi ma la luye ma tejji la ba nga daw sa ndjay la way kon da nga dégg la ngut ngëj way way ki fa mu dégg yow xamul tax yokku nak problème ni mi ko ko da nga lu xam nga yo problème ya, ben problème mooy dugul wax xam-xam sama xarit nga bax gépp bax mais nah, xam-xam sama problème mooy lii tax nag xaw a jàng xaw ci benn côté quoi parce que au moins ça va vivre da nga koy am luy savoir vivre xam ni ngay dundé dafa ni may dundé xam nako dir mais boko xam xam nga kii am indi tok xam nga ni ko ne ki sa dooma daanaka ki boy waxe mom li nga koy wax man na dugg ci xam-xam mu jëfé li nga wax mais ni ngay waxé ni du jarñu say waxtu do lo jox ci ritam dama ko wax lo ak mais ni ngay waxé moo dul wax du xam li ngay wax manam du ko nangoo du ko mën dégg dal parce que tegul ci xam-xam

jàppale sen bop jàppale sen i jëkkër xam nga ne ki mom ku ko ta ku mu takkon fi ni ya ko yore. ah <laughs> ya ko yore ah, ah, ah, gis nga ko ah kàcc nga nag kàcc nga de man ku ma tak dama lay yor allez yor la yor na ci biti yor na ci biti yore ah xana wax. <laughs> bëgg ci <laughs> yow lu ma gane ni ma ko jëm la lu ne lay def mom lu ne lay daj lu ne lay wax ko ko gi tàngee kenn am jàmm. They know gum know me, they know